tedd ñi fi teew ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen balaax di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu ñëw di suñu di ko waajal ñu leen di nuyu ci ndigalal ki nga xam ne mooy borom liggéey bi di fi indi Sëriñ Tuuba ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu fi ànd ak kilifa tedd yi nga xam ne moo leen jox ndigal ñu ànd ci liggéey bi ñu liggéey Sëriñ Tuubaa te yàgg ko def ba at mu njëkk yeesalaat ko ñu nekkoon ci loolu xirte bi tey liggéey bi nekk ci loxo bu fi Sëriñ Tuubaa kon lu fi wax ci ndigalam ak kàddoom ak baatam ci lañ koy waxee kon nit ñi yëkkati am yow di ko teg ci loxo gouverneur de la région de Diourbel di góor

mooy tey ñu ngi tudd ñoo àgg ci moom kon ginnaaw bi ñu nuyoo sant gërëm leen ginnaaw bis bii ñu bëgg a tàbbi di màggal Tuuba ni ma ko waxoon ndax démb rek màggal bi moom borom na ko ndax waajtaay mu si joxe ndigal da cee boole waale di tax nit yi bi moom loolu moom ci loxoom la nekk moom lañ si yaakaar te xam nañ ne am na suñu kilifa bu baax daa wax ne kuy defaral nit seen bis sa bis mënut a waxaale kon màggal ko xam nañ ne borom koy defal boppam li ñu ci war nag ñu ngi ko seq moom ñu ngi koy saytu ak yéen ñu ngi ko seqal mooy kenn ku ci ne xool lan jàpp ne mooy tax liggéey bu baax lay tax liggéey bu baax mu def ci yitte def ci doom def ci posté def ci alxames. kon ñun ñëpp ñu ngi wax dégg nañ bu baax kon ñu ngi ci sant bi ci gërëm di fas yéene tàbbi ci liggéey bi di xam ne màggal bi day ngir mu màgg a màgg ngir wéy ndax xew-xew bu ñu toll bëriwul ci adduna si ndax li ñu ko war a tekk nii ñëw Afrique moom bu ñu toll Sénégal moom. amut xew-xew boo xam ne lu mat juróomi million ñu ngi ko ci xayma te at mu jot foo ko natt mu weesu kon boobu xew-xew képp koo xam ne yàlla suñu dogal na mu nekk ni si juróom juróom sanam la saf sàng moo xam nga bokk ci yoon nga moo tax moo xam nga di jullit moo tax moo xam nga dëkk ci réew mi sax nga bokk ci lislaam kon képp ku fi dëkk rek da nga xam ne màgg di sa ndax bisu bisu suñu tool waxee na ko ñëpp sant yàlla ci wàllu ñu ngi nattante xëy na ci wàllu koom-koom itam ñu gisoon Sénégal njëriñ bu bëree bëri kon màggal yi moom rek mooy fête bi nga xam ne réewum Sénégal bi ci pertewaay da ci gën kon nag jàpp naa ne daañu ñu ko jox ak yitte ñu ko jox rek waris na koo yokk waris na koo jox lu ko ngir bu fekkente ne bu fekkoonte ne am na lu jëriñ ngay itam te xam ne taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñoo bàyyi ko fu ne ak jullit yi ñoo di màggal si Tuubaa kon loolu mboolem bi ci wax rek booy soo ko def rawatina nag muy loo xam ne boo doon xool ci koom-koomu Sénégal wax nañ ko waxati ko kon jëru jël si waat waaye amoon na njëriñ Sénégal amoon na njëriñ yéen kon lépp lu yëkkati ëpp ci màggal bi yeyoo na ko ndax am na mu ànd foofu kon nag yéen ñu ko seqal ñu ngi leen ci solo bu baax ñu ci ñu ci daal def ñu gën ko yokk ndax bu bañ a yow rek ca defoon naa daal kon dama defoon daal bu ma ko rus ndax loolu boo ko defee rek maa ngi ma leen dugg ndax mënoo xeeñ ci defoon daaw mu mu toll ci yow wala mu teg boo fa yebal waate bu déwénee day bari kon loolu mboolem seen service yu teew donc ñëpp sóoraale rawatina ren. magga yi dafa tàbbuwaat ci loo xam ne waxoon naa fi daaw daaw bi sa naa fi di ko dox ko bàyyi xel baax ndax Tuubaa màgg bi du ko xaaj ñaari at ci tam ñu ci jot nañ kon ren jii itam incha allah bu àndee dogal suñu doom bu fekkente ne nawet bi màgg yi tàbbu ci biir itam day fekk muy jeex kon te fii mooy wax ak ñun bu ñu tawee rek Tuubaa mbedd yëpp fees na ba kenn amatu fa jaar kon loolu. faaw ñu sóoraale ko ci xool nu ñu fexee ba ndox mi génn ak fexe ba saafara loolu ndax bu ñu ko saafaru dana nekk ci nit ñi te dana jur ay jafe-jafe yu gàllankoor yoo xam ne wàllu ñàkk si kër gi mën sa juddu wàllu ay mbir bu mën sa juddu ndax nawet xam ngeen li ñu ànd ba ca desaat mooy wàllu ndox mi ndox mi itam forage bi baaxoon wax nañu ñu koy saytu ba defar mm-hmm. waaye wala saa fexe ba ba li ci faamoon faamoon ci forage ñu defaraat ko waaye lu mu mën a yokkaat ci forage ak excitation réseau bi mu mën a àgg ci quartier yi nga xam ne ndox mi àggul fa ndax Touba dafa rëy ndax at mu jot ni mu màggee lool moo foo ko yàlla ne bu déwénee am na ñoo xam ne danañ dem ba dox ay kilomètres te du am ndox loolu itam te ba ñu toog di seen liggéey yaakaar xeet li ko ay yëngu-yëngu ba ci des mooy wàllu courant loolu dëkk bi ñu ngi ci sàkkuwaat ñu ngi ko daa sàkkoo ci yow daaw bi ngeen ci mën a jàpp ci lëndëm bi mu wàññi ko ndax lëndëm fu mu bari rek xam ne dañuy ànd ci wàllu ñi nga xam ne bëgg ñu def lu leer wala ñu lekk ca dund kon loolu itam ñaar yooyu bokk na ci yi ci gën a fàtte bi ci desaat mooy wàllu ñoom ñi nga xam ne xëy na ren. xawoon naa xam waaye bu ñu ci mën a góorgóorlu ci engagement yi ñu fi jëloon daaw ci quartier yi nga xam ne war na ko àggal incha allah def ci nit yi incha allah fii magal bi bu ñu ci mën a def góorgóorlu ñu def ko li ci mën a àgg li ci mën a àgg itam ñu fexe ba magal bi daal ñu koy taxawal ñu koy taxawal loolu daal moom ñu ci am solo ci wàllu sécurité moom xam nañ ne bu ñu ko daal dañ koy defee kon loolu amul lu ñu ci solo kon loolu la bëri amul fi ci wax. xam naa bu ñu joxee ñoom mu tàmbali ñu bu ko defee bu ko defee jàngee rapport bi nga xam moom lañ defoon Mbacke ak ci war a ji Mbacke ñu si war a doon rek sëñ Ousmane Mbacke bi nga xam ne mooy coordinateur comité bi dana ci wax mboolem commission bi tam képp koo xam ne wax nga syndicat dana la ko wax ne syndicat bi nga xam ne war a ko bu ci des it mooy. commune bu Touba moo tax lu ci wàllu yàlla ci wàllu li nga xam ne moo aju ci wàllu bi ci biir wax moo tax yàlla yeneen yi ci des mooy kilifa yi nga xam ne teew na fi te ñu seqal bi bu jeexee dana tam kenn ku ci ne li nga jàpp ne mooy def dafa gën a digal jéeg bu gën a wax ñu ne tam ñu sànni ci kenn ñu àggale liggéey bi ñu naan ba dégg itam السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.